saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa dogal ba Balla Gaye 2 jël na du bërek Boy Niang 2 bile dogal naka la ko waa kër Boy Niang 2 gisee noonee la sunu làmb xëyee Boy Niang 2 Burxaan Wade ak Dégol la découragé loo Balla Gaye 2 bam ne dootul bërek ñoom ci ñoom la jógee Burxaan Wade may manageru Boy Niang la mu xamle mooy li waral Balla Gaye 2 bàyyi xam naa ko li waral Balla Gaye lànk ne dootul bërek Boy Niang xam naa ko Balla Gaye 2 bu lànkee ne du bërek Boy Niang 2 ko ci wàllu sport waaye wax ju ko naqari la dégg wax ja ko metti moom Balla Gaye 2 jógewut fenn fudul ca Dégol Dégol moo wax wax ji tax Balla Gaye 2 ne dootul bërek Boy Niang loolee moo waral sunu lamb xëy na la per de Boy Niang de indexé kan moo ko indexé Bourkhane Wade may manager Boy Niang ne man mii maa ko indexé man mii maa ko joxoñ baaraamu tuuma ne moo yàq combat bi moom Bourkhane Wade dafa rangale ñetti dëggam tuuf ko dégool des fois il communiquement loolee la xamle moom dégool bu génnee ba wax rek loxo dem gémmeñ c'est quelqu'un qu'on ne kenn mënta tax ba mu noppi ñetteel ba mu ne on m'a raconté que dégool a tenu un discours dur envers Sa Thiès loolee moo merloo dara ba combat bay waaja taxaw wax naa ko li ma waxoon naa ko mu changé communication na ko kon neex mu wax kay mooy dégool moo tax combat ba yàqu na buñ ca Balla Gaye moom fàtti na Boy Niang mu nga ca Ama Baldé ma fa séenee bëreeg Modou la bëgg jàppale moom Balla Gaye ak Baboy ñu nga ca ginnaaw Ama di ko jàppale ngir mu daan Modou Lo moom la mu xamle mooy combat bi danaa ci taqrib combat bi fépp fu Ama geesu dana ma gis danaa ci jàpp ci zaahir ak ci baatin démb ca ministère des la association nationale ministre ba sedde ba mu yokk mise ba def ko 6 millions ñetti la promoteur yi tegoon mu yokk ca ñaar muy 5 démb bañ ko fekk see xol ba sedd mu dolli ca beneen la séral xol ba mooy la promoteur yi manko ba wax ko ko ñoom promoteur yi dañ koo xamal ne ginnaaw bëggatoo ko tëgg làmb Iba Mar pare nañ ca bu le janvier weesoo ñu nga ca arène nationale xol ba gën sedd mu ne danaa leen jàppale ba sponsor yi dellu si danaa ànd ak yéen tànk ak tànk mbagg ak Ndiaye borom Bawol production taxawal na bile combat ku wax ngel jonn wax Kalmu wax lit sans frappe loolee moo waral waa Adrien Senghor ak waa association des amateurs joxe seen xalaat Doudou Faye mooy président ANALS association des amateurs de lutte la mu xamle mooy ngel jonn mooy favori Saliou Diouf président Amalda mu ne man gisuma favori 50 50 laa gis Kalmu ne mën naa daan sa morom lit sans frappe gala ca Mbam le 10 leen di jox dig daje ba ëllëg incha allah.